tey jii dëppoo ak àllarba fukki fan ak ñett ci weeru février dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu jagleel wàllu campagne bi fii ci biir Touba asalaamaaleykum wa rahmatullah li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci maître Mame Adama Guèye mi ñu woon démb tuuba doon fi seet si sëriñ bi yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci coow li nga xamante ni amoon na Tamba te mu indi fi ay jéeya waaye tamit si yenn xibaar yi bokk na ci ñii di waa Daaru Salaam ñu doon amal ab daje démb ba yëkkati fa ay kàddu jëmale ko ci ki ñu nar a ànd ak ci campagne bi loolu lépp dañ ci ñëw ci biir yaatal yi démb ci talaata ji maître maam Adama Guèye mi ñëwoon ci biir dëkk bu sell bii di Touba doon na ziar si xalif bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ginnaaw bu mu génnee am na ay kàddu yu mu yëkkati jëmle ko ci jëye gi nga xamante ni amoon na fa la ca Tamba te ay jaamarloo amoon ci diggante ñenn ñi yor uh, wàllu kaaraangay uh, candidat yi waaye tamit uh, am na lu mu yëkkati jëmle ko ci Macky Sall ci ni mu doxalee ci ni nga xamante ni ñoom ñoo war a yor kaaraange gi ci ay gendarme yu ñu jël ak ay policiers di ko rafetlu waaye a tëddee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 parce que nit ki buñ ko tooñee te mu wóor ko ne ñi ko tooñ jàppale nañ ba jaarale nañ fi ñu war a jaarale loolu dina mën a éviter mu ne day fayu ñaar yooyu daal responsabilité candidat sortant bi la na ko doxal noonu au lieu que muy joxoñ ay baaraamu tuuma naan di wax diw ñooy responsable violence bi loolu rek wul dara du loolu la ñu xaar ci moom moom na am taxawaay taxawaayu kilifa moom moo am encore autorité bi na garantir candidat seen sécurité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 li mu liggéeyal Serigne Touba suñu borom fay ko ko muy liggéey bu rafet bu mucc ayib boo xam ne kenn du ko fàtte fu waaye tourné gis ko fa di ko sant bu baax di ko ñaanal di feddali suñu kóllëre suñu diggante ak moom ak sunu cofeel ci moom di ko xamal ne ko bi mu fi ñëwee barki dem bu bokkoon nañ ci ñi nga xam ne mobilisé woon nañ topp ci ginnaawam di ko teeru di ko wan suñu cofeel ci moom ànd ko mbooleem mbokki waa Touba gépp di ko xamal ne tey lañ ko gën a bëgg tey lañ gën a sopp mbooleem ku dëkk Touba ak ñëpp rek ak fu waaye mën a far rek taalibe bi yëpp ñu ngi fàttali ak cofeel ci moom goo xam ne duñ ko fàtte mukk ñu koy ñaan nag président Abdoulaye Wade ci sëñ Touba mi ñu bokk ak taalibe yëpp ñu koy ñaan mu ñëw jàppale président Madické Niang bu ko defee liggéey boobu mu commencé woon mu mën ko wéel loolu mooy li nga xam ne moom la ko taalibe yëpp di ñaan yoonu yépp di ko ñaan ci gëm nañu tamit mooy li nga xam ne bu ko defee dana ci dajee ngërmul sëñ Touba ca nag na doon lu yomb lool ndax da ciy day day tombeek mu nekk bëgg-bëgg taalibe yi ca mooy li nga xam ne tamit mooy tax taalibe yi seen xol sedd ndax moom par exemple Abdoulaye Wade liggéey bi mu commencé woon di ko liggéeyal Sëñ Tuubaa ba mu fiy jógee xam nañ fa mu ci yemoon waaye xam nañ li mu yéene woon continué ko ca mel gis ne nam ko tàmbalee woon yéene woon ko na moom ne mën na ko eggalee noonu te ci guddeel na ko bëccëgal na ko ñun nga xam ci lu bari ak lu ñu ci xamut mu nekkoon avocat am depuis 1985 mu metti woon ci moom lool ñu xam fu ñu jaar fépp ba ba 98 euh, moom moo wax ne ma par exemple dikk ñaa ci lu wér la demoon naa ci sëñ ay taaliba dajaloo woon nañ pour ma nekk candidat ba ma demee sëñ Saliou wax ko ko dane ma Ablaye Wade dama ci jaaxal nee na boobu laa xam ne Ablaye Wade mooy falu 2000 ma daal di ma ne ko sëñ bi di kon teg naa lépp ci suuf daal di topp ci gannaaw Ablaye Wade lu ma am jox ko lii moo ma ko wax ci am naa am na ay seede kon daal par exemple Ablaye Wade ñu ngi koy ne ko taaliba yëpp ak waa ñu ngi koy ñaan mu ñëw jàppale président ma dikk ñaa rakkam xaritam mbokkum taalibeem mu wéyal liggéey bi nga xam ne moo liggéey liggéeyal ci réew mi moom doon liggéeyal Sëñ bi la yoon dañuy dem seeti waa APR ci seen programme yi nga xamante ni ñu ngi koy euh, jëmal ci biir dëkk bi di seeti ji askan wi euh, ci kii di euh, maire bi di ko amal di Abdoulaat Ka dañuy dem déglu ki nga xamante ni mooy ndaw ba fa teewloon di Abdoulaat fay ca dëkk boobu di Daaru Xuddoos demoon fekk ji soxna ma Mariama Mbàkke ñu dem déglu ko te ñëwaat du alal du ñu joxe man je suis contre man d'accorduma maanaam li ngeen soxla mbootaay bi laay wax li ngeen soxla mbootaay bi li mu soxla daañu leen ci accompagner le maire Abdou Lahad Ka xam nga xam nga bu ma waxee bu ma ñëwee ba tey jii li taxoon bëgguma ko tudd. Abdou Lahad Ka soxna Mariama Mbacke soxna Bali dawuñu daayuñu ci dëkk bi leen dëkk dëkkuñu Dakar dëkkuñu Fongolimbi laaj ñub réew fii leen dëkk. ngeen mën a xëy dem ci ñoom directement kon ñooñu lu leen di wax day leer du bëgguma koon wax parce que bu ma ko waxee dañ naan waxi politicien la dañuy bëgg a wut moo taxoon bëgguma ko tudd mais nag dama cee xaw a xelmat lu mel noonu léegi na loolu xam ne ne loxoy kajoor day weesaloo Abdou Lahad Ka moo ngi fi soxna Maria maa ngi fi soxna Baalee ngi fi soo leen ko jàppalee ba am ba mu am li mu bëgg soo leen ko jàppalee ba mu am lu mu bëgg man de git kitaabul naa Serigne Touba ne Abdou Lahad liggéey Serigne Touba rek ko du sen homme de développement la sono Mariama Mbacke femme de développement la sono Bali naka son naka noonu boo leen ñu jàppalee ban am li ñu bëgg da ngeen am financement yu yomb loolu maa leen koy wax fii tey DER bi ñëwoon na fi première phase la woon deuxième phase day am ba ñetti phase deuxième phase bi nag après élection lay dem troisième phase bi bu premier deuxième phase bi jàllee la loolu nag ngeen fexe ngeen fexe ba Soxna Bally organiser leen ngeen dem déposé financement yi moo waral may leen nan àndandoo liggéey liggéey jàppale Macky Sall waaye àndandoo tamit def développement li ngeen soxla nag ngeen wax ko Soxna Mariama moom dana ko wax Abdou Lahad Ka lu yàggul dara di ngeen ci gis dara lu concret foofu daal wax ji gudd na lool nag waaye yéen a ji nam ci président Macky Sall ak nekk Touba ñu xam ne zone bu dangereuse zone bu dense la rouge la. xam ne président Macky am na fi am difficulté moo tax kàddu gi yaatu bu leen kenn orienté bu leen kenn détourné si seen objectif muy la réélection du président Macky Sall naka ngeen koy defee mooy huit heures na ngeen teel a dem ci bureau de vote yi kenn bañ leen faa jitu ngeen teel a jël marron bees bi yàpp ko ci undu yi ba mu fees dell balaa midi jot ngeen mën a dellu dem taali seen añ ngeen bu 13 heures jotee wala 14 heures bu jote journaliste yi dem ci centre yi ñuy dépouiller Macky Macky Macky Macky Macky Macky Macky Touba gépp doon Macky Sall ba léegi ci ndaje googu am na ay soxna yu fa nekkoon daal dinañuy fësal seen sàkkuteef eh, ngir kii di maire bi jàppale leen si waaye tamit ci ñoom ni ñu nam eh, ñëwee ànd ak ñoom ci liggéey bi ñu bëgg muy falaat kii di Macky ñu dem teewlu leen ci micro bu suñu info. waaw loolu daal lañ bëgg. nit ñi jàppale ñu soxna Mariama mën a jàppale Abdoulaye Ka mu jàppale Macky Sall mu faluwaat 2019 loolu daal lañ bëgg ñu jàppale boo defee bu ñu jàppalee ñu jàppale leen ñoom itam waaye ñun suñ bëgg-bëgg mooy li jigéen ñi bëgg ñu jàppale jigéen ñu liggéey jàppale seen ñu njaboot ak seen waa kër loolu daal lañ bëgg kuñ ci jàppale muy ci financement yi wala ay procès daal yu ñu leen mën a defal ñu mën a def ay formation jigéen ñi daal loolu lañ bëgg mu jàppale leen ci lu ñuy ay ay ay bale ay kii yéen tudd ay ratu ay ay kii burwet waaw loolu moom mu kiyal leen ci waaw ak ay basang ak ndax dañoo yor daayira dañoo yor daayira Porokhane bu mag ay basang ay sees lu mu leen mu jàppale leen ko ndax ñoom tamit dañoo am pasef liggéeyal Sëñ Tuubaa daayira Porokhane bu mag lañ fi yor soxna Asumi sama mag moo ko jiite ñu ñu ngi waxtaan ak ñoom bu baax a baax a baax ñi ngi waxtaan a ñoom bu baax di leen fii moom ñi fi nekk sax xam naa ne jërul ñuy waxtaan ndax ñoom chaque année bu ne moom la ñuy wateel moom sax vote bu ñëw moom moom la ñuy wateel loolu moom suñu xel dal na a baax bile xibaar mooy ndar képp lépp lu ñu jagleel wàllu euh, campagne bi fii ci biir tubaa di leen dig daje ci yeneen i xibaar wasalaamualeykum wa rahmatullah taalaa wa